nan la abal ma sama passe xàpp bi am kii bi lu tax xàpp bi. moom markam bi lu mu tudd côté bi kollatiku loolu doo ma ci diwaa lii nii lii lii lii li mu kollatiku nii parce que li pomme bi taxaw na mais benn côté bi dafa ŋàppatiku nii man dama mës a bëgg xam lu tax mu mel nii <laughs> du ngeen ma ko expliquer ngir yàlla bu ngeen see xam euh, xaaral ma wax la lan moo tax wala nga wax internet ci xàmp na pomme bi coloniser bi coloniser yi da koo xàmp ko boo yoree iPhone 5 yaa ngi yóotu 6 boo yoree 6 yóotu 7 kon moom ci xàmp bi nii la te moom bu ñëwee xam nga nu muy def xapati waat tuuti ci pompe bi rek ci catu. kon ba tey day maanaam version bu génn <laughs> siis bu génnee xoolal maanaam ci fonctionnalité yi toq rek. gis nga lay xaw a ëppalee tuuti rek. man pour man jàngat. nañu ñu topp ci nag ñun. nañu bité yi génne na dem tapé l'histoire de Apple. mu mhm. wax la mu wan la usine bi fi ñu ko tàmbalee. Mhm. ak tey. na kii ne la Apple a commencé dans un garage. garage. oui ab pokos bu ndaw. bu ndaw. moo tax gis nga réew fekk dooleeloo say sa secteur privé protégé woo say capitaine d'industrie billaahi doo ci génn kii dafa dem am xam-xam créer benn affaire mu dox mu dem uti ay financier convaincre leen gaa yi dugal ci xaalis mais bu doon moom ak moom képp du egg si fii maanaam doole. kii <laughs> Eh, suñu maam <laughs> suñu maam Adama kampul pom bi de. xam nga man <laughs> yi. <laughs> commentaire yi gis nga léeg nga lire ci lu xoromu loo xam ne nii. émission bi daa génn. nee <laughs> na mami day judd fi bi man mosuma gis internet yu mel nii bi ma juddoo ba tey. <laughs> yéen nii ba suñu maam Adama xamboon walaay dëgg la waaye man de pom bi man pom bi dama waa ñamal leen ma ci yéen ñii yéen ma bokkat la. gis nga kii woo oh, yéen ñëpp ñamal leen ma ci pom yi bees yi. pom yi am na bu bees bi muy génn du. même notre food and aîné sow il le transforme à, en vernis à ongles et nous le revendent fu doon amul ci marché bi. et c'est tellement vrai. dëgg la xam xamuloo le vernis halal. waa halal gi. tu peux prier avec. moom la ñuy jël transformé ko duñu ko jaayaat ñun. mais ñun ba ñun ñun am na daal. waaw waaw dañoo tooñ wàllu. manque de volonté rek la am ay ñàkk nekk ci réew ñu taxaw ñëpp. vraiment Steve Jobs ñaata Steve Jobs ñoo nekk Sénégal jamono yi. ñaata Mark Zuckerberg ñoo ne Sénégal. mais ñii dañ leen a jàppale pour ñu egg fi ñu egg attention. dañ leen jàppale pour ñu egg fi ñu egg. waa ji garage bi ñu doon tàmbalee. il n'avait pas les moyens de développer affaire bi dafa dem wuti xaalis ay nit ñoo ko gëm gëm ne kii li muy doon def nii bu ñu ko jàppalee mu dem ñu jox ko xaalis mu liggéey la preuve tey xoolal Apple. Mhm. Facebook bi ñu koy tàmbali mais lu ndaw la woon il a fallu que nit gëm ko et puis pare cee def xaalis pour mu dox mais fii réew mii sa waay da ngay am projet wut. da ngay xëy di wër ba ngoon doo gis ku ne la booy cent franc ngi nii. Eh, dugal ko ci waxuma laa nag réew. détresse à la place des cheveux naturels. je suis d'accord avec toi. ak ma d'accord ak yow. mu ne de lan. détresse à la place des cheveux naturels. jàppul ñëpp nag ak yow. jàppul ñëpp xoolal xëy suba man léttu ay maap ñëw toog. waaw ma këfin gaa ngi nii. Ah, mais xam nga yéen Sénégal benn instant tamit ñoo xaw a tënk nit ñi ci ci ci ci xoolin bi yeeg ci ci yooyu wax dëgg yàlla ndax bu ñu xëyoon sax def ay. kii affaire boobu nu Hmm? ay non. ki ki kii laa ñu jël benn matinal fii. dañuy topp am naa numéro dañuy jàpp fii. waa ji ci boppam am naa numéro. dañuy jàpp xool télé bi xool beneen télé. xool xool xale bu baax dem seetaani Asma wala. Euh, l'autre Yacine. kii dañ ko war a dooleel jox ko li mu soxla ci anam yëpp bu développé ko. moom Babacar mii. Babacar ma xool. li ñu wax rek. li ñuy wax ci suñu dox gi mooy rek kii. non non pare ba amul lépp. man ma bëgg liiral ñu dégg. liiral kon ñu dégg. dëgg la dëgg la déedéet di nga ko liir. di nga ko liir dafa sew dafa sew soose ay soose ñu ngi génne sama myopie ci ci télé bi. mu ne un appareil portatif pour traiter un certain type de cancer. Sénégalais la Softu RX. c'est un Sénégalais. ah doo il s'appelle Babacar moom laa bëgg ñu jël ko sax. kii par exemple kii si bopp la bëgg naa ko fii ak la. Mhm. kii lan la ñuy xaar pour def ci moom ay milliards pour mu développer lii. fii la ñuy xaare ministère la petite et moyenne industrie petite et moyenne ñii nañ leen jàppale start-up yi pour ñu développer wu. wallaay dëgg la gis nga waaj yi bu ñu ko jàppalewu wu day mujj découragé. Mhm. dem toog. loolu mooy problème réew mi. Mm-hmm. utal ko utal leen ma ci pom pom bu bees bi am ñetti bët yi daala sas naa la ko dama doon seetaan Pape Sidi Fall yam ñetti bët mais moom da doon promouvoir Pape Sidi Fall euh, bu euh, dama ko doon seetaan mais da doon promouvoir xale yi nga xamante ne c'est des génies en quelque sorte Babacar Diop waaye dama suñu média yi enseignant chercheur dans les nga xamante ne ñoom ci création lañ nekk man c'est ça mon problème fii da ngay gis dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy former des littéraires mais technique. les matières scientifiques là foofu la foofu la avenir bi nekk. mais foofu la avenir bi nekk problème y' a des gens y' a des ingénieurs ici hein. y' a beaucoup d'Einstein dans ce pays. on ñooñu fekk état bi amul politique mhm. gis nga FBI. bu ñuy bu ñuy recruter. c' comme ça du ñu recruter n' importe qui. dañ mhm. lay topp à bas gis nga ñii nii nii ñi muy wax nii. Mhm. booy ndaw yooyu di créer état bi tey daf leen waroon repérer sécuriser leen gàddul leen seen lépp. Mhm. def ci moom xalal ci ñoom alal ju du jeex ñooñu ñooy màgg nekk ay capitaine d'industrie nekk ay Zuckerberg nekk ay ay ay Steve Jobs mais xoolal. Mm. kuñ ci dimbaliwut bu dee bu dee da nga am bàyyi baykat bu màggee bay lool la. da ngay bàyyi lépp mujj ànd ak moom ci tool. parce que gisoo ko la dimbali nag xam-xam bi lu mu lu mu bëri bëri ci bopp bi. duñ la mettre dans des conditions pour nga xelli ko pour mu jëriñ dara mais doo ko def da ngay dee ak moom. Mm-hmm. c'est dommage. Mm-hmm. tey di li ngeen jël ba nangu woo leen noppi. émission bi moom kañ lay jeex. laa xamul lan lan la. nañ dem ci beneen ponk bi sama benn nijaay ñu toog émission bi moom kañ lay jeex ñu daal jug dem. alors euh, li beneen point non Mimi Touré bi moom foog ma dégg ci soose. waaw loolu ko ñaan foog mu wax point bi. Oh, soose rek nga jox man wax naa ci dem. lu dal Mimi daa woo. waaw euh, combat Mimi Benno les frustrés risquent de rejoindre l'ancienne